monolocal bi nga xam ni président Ousmane sonk daal dina koy euh, euh, wax ci discours mu doon def ci ca Sikicoor euh, discours boobu noo ko jàngate Euh, dégg naa ko même dégg naa après explication yi mu ci joxe Monaco plusieurs d' autres endroits dans le monde yoo xam ne si am na mais xam nga discours dafa am sa démarche ce qu'on appelle la démarche du discours et le discours en tant que tel dégg naa aussi Moustapha Diakhaté li ci wax mais effectivement monnaie local moom nga wax ko te yam si kese c' est un discours séparatiste ce n' est pas un bon discours c' est un discours séparatiste peut-être que ñaar ñoo am ki optimiste yaakaar ne loolu mu wax noonu comme ni mu existé dans les autres endroits noonu la amee ak pessimiste bu ko opposé comme Moustapha Diakhaté peut-être xalaat ne il adresse un groupe connu boo xam ne moom moo leen xam un groupe précis boo xam ne moom moo leen xam si c'est ça c'est un discours séparatiste dangereux su fekkee ne nag comme ni mu ko expliqué moom day expliquer comme li am Monaco ak li am dans les dans les autres endroits il faut être optimiste nga nga dégg ni mu ko waxee nga gëmee ko noonu donc euh, je pense que ce sont deux avis différents sont valables mais damay wax rek ne Ousmane ko a intérêt à contrôler son discours à contrôler sa communication parce que am na fooy tollu ci dimension politique faire face à un régime aussi fort comme régime bu Macky Sall yow ngay seet di exploiter ay faayam contre lui mm, contre le régime régime bi seet doon exploité say faay contre la yow tam mënoo jiiñaate dëmm ba noppi yow ñu gis la yow ngay soccoo tànku xale xam nga xam nga olof daf ne ku ñuy jiiñ dëmm du soccoo tànku mais aussi kuy jiiñaate dëmm yow tamit doo soccoo tànku xale il a à revoir sa communication toujours day am ay faay yu bëree bëree bëri yoo xam ne mënoon naa ci insister yu bëri mais dama amul intérêt pour insister ci faayi Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne m'intéresse pas euh, benn liggéey lañ bokk muy bokk jële fi Macky Sall même su fekkee ne bokkuñu nuñ ko fii même su fekkee ne bokkuñu nuñ koy defee aw ma intérêt pour di xool ay faayam parce que su ma ko su ma ko ci ñëwaatee l'ennemi va l'exploiter donc moo tax parfois intéressé wu ma ki ma gën a intéressé mooy l'ennemi comme Macky Sall bi ñu bokk ñu dégager ko parce que loolu rek la ñëpp war a bokk tous les patriotes sénégalais. benn objectif tous les démocrates sénégalais tous les bonnes foi tous les citoyens benn xeex lañ war a bokk muy le départ de Macky Sall ba gunge ko ci jàmm parce que s'il le fois dañuy mettre suñu pays en péril loolu nag laa bokk toute l'opposition loolu moo tax aw ma intérêt pour ci Ousmane Sonko nee na lii Sonko nee na lii Sonko des petits détails mais voilà lui il a intérêt à revoir sa communication jërëjëf président ñu amoon mbégte euh, janox yow xaj na sax temps moo ñu mayut ñu faram fàccee lépp mais am nañ mbégte saa su ne di la dalal ñu ngi lay jaajëfal. yàlla ma ñu ñu fekke waat 31 euh, décembre yu bëree bari at yu bëree bëri ma jaajëfal la bu baax ci liggéey bu rafet bi ngay def di jaajëfalaat Sénégal set yéen toujours su ma sorti euh, tey quatre télévision sollicité nañ ma mais yow sama xarit nga suma mbokk taalibe nga suma rakk nga moo tax yow saa boo waxee rek ma ne bismillah maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf. ñu jëm rek ci wàllum homosexualité criminalisation de l'homosexualité bi nga xam ni euh, société civile bi euh, ñi nga xam ne ñoo bokk ci waa Jamra ak ñenn ñoo xam ne bokk nañ ci euh, diine ji ñu ngi doon déposer benn projet de loi benn projet de loi ngir rek ñu mën a criminaliser homosexualité gannaaw bi aussi am na ay rebondissement yi ci am yow en tant que sénégalais ban jàngat nga ciy def. trois trois argumentations la dégg ñi ànd ak Macky Sall avancé ko. mais ce qu'il faut savoir d'abord mooy le parlement est contrôlé par Macky Sall le chef de la majorité bu ne leen woon voté leen ko dix minutes yi ci topp lañ koy voté ba mu ne leen nañ voté immunité parlementaire wu Sonko ak ñeneen ñi des matul sax une semaine lépp terminé Macky Sall moo ko bëggul na leen ko wax duñ ci teg baat parce que monsieur waaye. loi boobu moo ko bañ personnellement moo ko bañ. dama ne la Macky Sall mooy wax lii def lii mooy taxu naan non li fekk maa ngi fii du ñu du fi am ba noppi gëmu ko soo gëmee na ko criminaliser mais hypocrite yi ma dégg soi-disant député que loi banque fii euh, mi ngi ci code pénal bi c'est réprimé mais viol mi ngi fi woon ça a été réprimé toujours mais lan la teewul dañ ko jëlee ci délit indi ko ci crime loolu lañ bëgg ñun tam ñu jëlee homosexualité ci délit bi mu nekk indi criminaliser ko indi ko ci crime mu nekk un crime loolu lañ soxla comme ni ñu ko defee viol. mais président proposition de loi boobu nga jàpp ne bu ñu gënoon a euh, durcir sanction yi du gën a yomb ñuy criminaliser yëpp. Eh, xam nga toujours du ñu voté loi rek loi loi bu mu doon di am ay ay ay accompagnement. mais rey nit a ngi nii ñu ngi koy jiñ ay nit mais kenn ku nekk da ngay dem da ngay dem da ngay dem taxaw sa défendre ba nga xam ne ba mu wér la ne nii moom la ñenn ñenn ñu ñenn ñu jàpp ne en grand délit ñu xam ne ñoom la soo maanaam su euh, euh, su boobaa ñu sujet leen ci loolu mais. deuxième argumentation bi ma déggaat ñu avancé ko kenn ki neena na oui homosexualité bi loi bi baaxul parce que c'est incomplète parce que mën nañ ci dugal euh, dugal nañ ci lesbiennes mais man mën nañ ci dugal euh, ñiy jëfandikoo appareil ñiy yokk ko ba mu yaatu bu nga xam ne si amul benn loi bu mën a régir toute une vie moo tax loi bu moo tax loi di nekk plusieurs différents articles parce que amul benn loi bu mën a régir lépp day régir la partie l'essentiel homosexualité ci l'islam bu koy wax muy ne innakum na taatuna yàlla shahwatan min duni nisa xaw ma lut ñoo ko njëkk a def moo tax arab di ko wooyee li waat ñoom li ñu def mooy jëfandikoo góor ak góor yéen a ngi jëfandikoo góor pour plaisir. voilà l'homosexualité leen lu ci def rek. istinbaatat yi ñoo ñoo ko ñoo ko yokku élargir ko ci loolu mais loolu mooy homosexualité nañ ko nam ne loolu pour le moment en attendant boole ci lesbianisme et après au loi day gën a mun nañ koy gën a yokk mun nañ koy gën a élargir mais fi mu toll l'essentiel mooy loolu mënuñu sukkandiku ci ne bee ci la bokk bee bokk ba saa bu leen neexee daal kon loolu moo tax kon loi bi baaxul duñ ko voté non loi bi li mu visé mooy li l'islam aaye mooy li société bi bañ mooy góor ak góor jigéen ak jigéen góor ak góor principalement ñu yokk ci gu jigéen ak jigéen baax na am na yeneen argumentation fallacieuse euh, beneen hypocrite bu taxaw ne woy parce que nous sommes pas dans une république islamique oui mais mais homme hein xam xamee wu ma seen tur yi dégg naa kenn ku doon woote ci benn télé man je connais pas bien assez euh, député Macky Sall yi su ma leen xamoon tudd leen ah parce que ku tudd Macky Sall mën ngaa tuddi doomam kooku amul problème mais. loolu mu mu mu loolu loolu mu wax noonu mais religion yi fi am yëpp muy christianisme islam juif religion yëpp a condamné homosexualité amul benn religion dans le monde boo xam ne si aayewul homosexuel depuis l'autre bi nga xam ne waa këram ñoo ko njëkk def ci àdduna ba tey bépp prophète bi fi jaar bu une religion condamné nga homosexualité kon ce n'est pas parce que nous on pas dans une république islamique que kon duñu ko criminaliser non c'est diine bu mu mën doon ak sénégalais bu mu mën doon amul benn sénégalais bu bëgg loolu bu dul benn tierce personne boo xam ne sont des voyous et ay criminels yoo xam dañ leen war a leen war jàpp sujet leen comme euh, en tant euh, waxtu ñu joxoon euh, jeex na waaye gannaaw proposition de loi